daje bi fi amoon ci mbiru mbënn mi premier ministre jiite woon ko bi mu jeexee dogal yii la ci jël euh, wax na ministre bi bi toppatoo mbiru assainissement mu ànd kook ministre li tole bi yore collectivité yi ak ministre des finances ñu def lépp pour liggéey yi ñu sumboon ñu yeggale ko liggéey yooyu nag ci yenn ...le département de Dakar bu Pikine bu Fatick bu ak liñ fi doon wax ci ci lu jëm ci seen sëg ci seen cimetière laaj na pompage bi ñu tel ko génné yóbbu ko fiñ ko war a yóbbu bari wala bala ministre bi nga xam ne ne moo assainissement nattangoom yi ñu fexé ci biir mois de juin bi ñu dëgmal incha allahu opération yi nga xamné né dañ koy def bala taw bee lu mel euh, euh nettoyer canaux yi bassin yi ak lépp lo xamné né ni day jàppale ci xex ci mbënn mi ñu fexé ci biir mois de juin bi ñu paré ko incha allah mi ngi waxta ministre bi yoré assainissement mu fexé ba ndawam yi nga xam ne ni ñooy saytu ñi def la ko sudul noonu nga xam ne ni mën naa yàq liggéey bi mu fexe ba ñooñu ñu nekk ci terrain bi def liñ war a def te ku tegg yoon ñu seet fu ñu koy jaaraleeg yow euh, premier ministre aussi wax na ci lu jëm ci euh, communication ak sensibilisation mooy ni ñu war a tase xibaar yi ak euh, altu nit ñi ak jox leen information yi ñu soxla

li jëm ci euh, koppar yi mooy li ñu yoreel ñi nga xam ne ne defoon nan liggéey te fayagun leen nee na ministre des finance na fexe ba lépp lu fi nekkoon luñ fayagul ñu fay ko lu mu gën a gaawee te fexe itam képp kun dénkaatub liggéey liñ la dénk ñu fay la lu mu gën a gaawee mu bañ a benn retard li jëm ci marché yi nga xam ne ni nekk na ci validation approbation nee na tam ministre des finances ak ñëpp ñu ko séqal ñu fexe ba marché yooyu ñu gaaw ko yeggale ndax li des ci hivernage bi bariwul euh, rawee na euh, projet bi ñuy wax projet 1 nga xam ne ne projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation du changement climatique bi nga xam ne mi ngi nekk ci banlieue Ndakaaru wax na ministre hydraulique aussi ñu fexe rek euh, li jëm ci biir nawet bi gox yi ak euh, quartier yi nga xam ne gis nañ ne ñoom ñooy gën a euh, ñooy gën a taa ñu fexe yooyu ñu euh, jox leen gëdd gi mu war pour fexe rek mu bañ a yàqal nit ñi lu jëm ci koom-koom lu jëm ci aussi ci seen déplacé wu donc nee na yooyu ñu bàyyi ci xel lool lool lool rawetane aussi Euh, dëkk yu tedd yi mel ni si nga xam ne ni ñu ngi cay euh, ñu ngi fa ñu ngi fay def màggal wala gàmmu ak centre examen yi ñu fexe ba yooyu itam ñu bàyyi ci xel lool def benn dispositif spécial bu tax ba euh, mu bañ leen bañ a gàllankoor dara ci mbir yi mu wax ministre de la famille ak des solidarités mu fexe rek fépp foo xam ne ni gis nañ koo xam ne ni mbënn mi dal na sa kaw ñu dem wàllu ko Euh, li jëm ci aar bi nu war a aar euh, waa réew mi ci lu mel ni dënnu yi wax na ministre intérieur aussi matukaay yi war a jël pour que jumtukaay yi nga xam ne ne dana fexe ba dënnu yi di war a bañ a wadd ci nit ñiw di leen gaañ ñu jël aussi matuwaay yi ci yam li jëm aussi ci pompe bi pompe ba fexe rek zone yi nga xam ne ni bu fa ndox ma taa dana indi ay jàngoro le ministre de la santé nous def liñ ci qu'il def li que ne aussi premier ministre insisté na parce que dans ko fi wax fii nous euh, avons yi nga xam ni ñepp des nous kenn waru fa tabax kenn waru ñu dem dëkk fa mu indi problème yu bari bari premier ministre avons fait gox yooyu nous fexé ba téré fa lépp ni ay tabax yu des la dana jox dogal yi war ministre yi nga xamne ne ni moom la intéressé ñoo concerné ñu fexe ba yoyu ñu dakkal ko ñu fexe aussi quartier yi nga xamne ne ndox ndox fay ta boba ba légui ñu fexe nu nu mëna fexe rek restructurer quartier yoyu premier ministre waxna na aussi lépp lu jëm ci structure yi intervenir ci mbënn mi néna ministre des finances na leen defal lim leen wara defal dajale xaalis bi soxla ñu man ci jot buñ ko soxla muy DPG yi sapeur pompier ANACIM ak ONAS wax na tam euh, liggéey yi nga xamne ne ñi ngi ko nizar ci yenn dëkk yi lu mel ne département Kaolack Saint-Louis ak Bakel ministre de finance ko kook euh, ministre économie ñu jéem a seet nu ni wuté xaalis boobu ba mëna sumbu loolu euh premier ministre aussi insiste na ci lu lu am solo moy comité régional de gestion des inondations ñu fexé rek ba liguey bi nek liguey bo xamné ne dañ koy waxtané luñ fa décider tam ñu fexé ba doxal ko nu mu gën